Salam alaikum la j'espère que vous allez bien. Alors moi je me porte à merveille, mangi sante yalla, alhamdulillah. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, bien sûr avec votre grande chroniqueuse Kharitou Nyep Kenza 221. Guys, comme nous m'avons faral de à chaque fois, nena le matricule 221 en fil. Toutes les informations et les actualités se passent ici sur notre chaîne YouTube Kenza 221 donc jusqu'à présent vous vous êtes pas encore abonné hmm. des fois je me pose la question mais gars pour abonner. au fait abonnez-vous et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos alors yéen nga des application téléphone en juin, vous pouvez utiliser ces codes promo Kenza 221 ou Kenza dina leen permettre ngeen un bonus ba 200 oh my god 200 là, cent leen wax de xam ngeen ne du ay faux ay donc s'il vous plaît en jouant veuillez utiliser ces code promo Kenza 221 wala Kenza. alors gars tay nak nag euh, ñew ak sen concept jotay info vous dajale tout ce qui est actualité ñew partager ko ak yéen. parce que nak bo leen xolé y a beaucoup de nouveautés gars suñu rappeurs yi Tang ils sont très productifs. ci noonu nag yaa personnes yoo xamante ne ni nekk ñu à jour ci game bi moo tax ñu indi leen seen concept jotaay info pour ngeen xam lépp bépp actualité boo xamante ne ni jot na xew ci biir game bi donc écoutez-moi très bien ci noonu dañuy commencer ci ki nga xamante ne ni moo di Samba Peuzzi en featuring avec ki nga xamante ne ni moo di Rema sound intitulé Mercedes ñu xooli ko ñëwaat léegi léegi let's let me know, Just let me know, just let me know. Let me know. Lambo truck or a Mercedes Benz I can be there in no time. Just let me know, just let me know. Alors gars, gis ngeen tuuti ci euh, vidéo bi eh, c'est intitulé Mercedes. Samba pose bien sûr en featuring ak ki nga xamante ne Rema. Mais avant tout, man dama naan félicitations à toi Samba Peuzzi liggéey bi mu ngi nice macha c'était ton rêve nga futur featuring ak nga xamante ni vraiment. Euh, euh, et bien sûr réalisé nga donc félicitations rek lañ lay wax et ça prouve que suñu artiste yi ñoo liggéey ku melni ni Samba Posé bu démé ba def featuring avec un artiste international muy Rema hum, mais cela prouve que suñu game mu gi avancé bu baax a baax sax et à vrai dire Samba Posé il a très bien bossé depuis mu dugg ci milieu bi ba légui il ne cesse de nous surprendre wallaay sound bi nak bien sûr neex lol sax en plus Peuzzi dafa ñëw teggu ci beat bi nice sax sans complexe man xaw ba xam def ngeen remarque bi ou pas mais man loolu la njëkk a The te Samba Peuzzi a fait featuring avec le premier artiste à avoir plus de 35 millions d'auditeurs sur Spotify c'est extraordinaire c'est explosif et à vrai dire dina yokk Samba Peuzzi lu bari sax dina ko permettre à l'international ñu gën ko xam Rema bu tëggoon concert aussi mën na koo invité mu dem et bu boobaa dina fa gagné beneen public. à vrai dire gars yi featuring dafa baax ci artiste et njariñu featuring mooy mayante xaalis la mais en même temps mayante public la. par exemple artistes yi def featuring ku ci tëgg concert dina invité moroomam maanaam dina invité ki nga xamante ne ni moom la amal featuring et bu boobaa publicam dina dem et bu demee dina fekk ci beneen public. moo tax ma ne featuring mayante public la mayante xaalis la aussi en tout cas mention spéciale à Samba Peuzzi liggéey bi doob na léegi s'il vous plaît dem leen ngeen seetaan ni vidéo bi pour plus de visibilité en tout cas man je me dis que ni vidéo bi waroon naa am un million de vues bu yàgg sax donc dem leen ngeen seetaani ko soutenir suñu artiste Samba Peuzzi ndamam la la fekk mu def featuring bi ak un artiste international vraiment bien sûr mais ñun tamit suñu ndam la ñun ñi nga xamante ne nii ñooy amateuru hip hop Galsen donc wax leen seen xalaat noo leen gisee la vidéo ak tamit noo leen gisee Peuzzi avant clavier bàyyi naa mu tëmb. léegi nag gars yi juste après euh, Samba yi dañuy jàll ci ki nga xamante ne ni moo di taal bi. récemment génne na benn vidéo au nom de John Wick léegi ñu xooli ko ñëwaat léegi léegi let's go. xaw ma woon coow dina jënd jàmm ancienne son yi dina gën a jàmm geste yu wax comme xabilam madre puis sama loxo dama takk lam gaañu si rap dama bëri góom. bërë yàggu zin wak bëri góom wax li si manqué li des ma motali ko bi bu doon suuraat la ma tarikoo ko defi ñuy pop pour xaritoo bëgg traw gang ma fiyaa vidéo baa ngi noonu gars yi et John Wick John benn film Mais man, je peux bien dire que le sound est une vraie tuerie comme le film John Wick. Parce que sound est mon nice amna qualité vidéo bi aussi pareil. Tal bi moom talaamam yakarna ne ken dootu ko lam lamé parce qu'il est très talentueux. Amna talent amna technique flow et tout Les lu rappeur wara am rek mu ngi ak mom la vérité. sound bi nak ego trip la juste pour won ñu que mom dafa mën ego trip bien sûr mais sound bi si boppam moo riche je vous le jure de nga ci fekk ay technique yu nice comme ay next level ay punchline lepp lu nice rek boo ko soxlaa nga ko fekk ci biir sound bi tal bi c'est une révélation à suivre ku jara bay xel la parce que dafa meun lu def et j'ai fait une remarque concernant Talbi. soo leen bàyyi xel ces derniers sound et vidéo yëpp signature Dido nekku si xaw ma ba xam euh, def ngeen remarque bi ou pas mais perso j'ai fait cette remarque et tu su si nekkul rek ça veut dire que peut-être daa quitté Dido Records en tout cas mu ngi noonu wax leen seen xalaat ci euh, taal bi ak noo leen gisee la sound mais aussi selon vous ndax dafa quitté Dido ou man nag xawma ma damaa def remarque bi ñëw wax leen ko donc yéen wax leen ma seen xalaat ci commentaire yi wala ko ci am lu la leer rek mën nga ñu ko bàyyi ci commentaire yi. alors gars yi juste après taal bi dañu jàll ci ki nga xamante ne ni moo di KMT il est très productif ces temps-ci fan yii la def featuring ak le groupe Afrobrick Paradise yaa a même une semaine mu ñëw génneel ñu featuring bu nice sax. avec Edflow, Wizy Kana, Talbi et Authentic Zest au nom de Vroom Vroom. ñu àndandoo xooli un peu sur la vidéo ñëwaat léegi léegi. damay boum boum jaru zoom zoom say vroom vroom accéléré niveau bi di boum boum rambu sama ennemi ak vroom vroom jar sama kanam comme Non mais Sound moom beneen affaire la je vous le jure et KMT a bien fait son choix du côté artiste. Il dafa choisir ay artistes qui xam ne kenn ku ci nekk sa empreinte ci biir Gambie kenn ku ci nekk ak style bi nga mélange le en fait donc foo jaar sound bi explosif C'est ce ñun nous xam nañ ko et a dafa nice hein. genre collaboration yi def sound invité ci ay rapport yu am talent initiative bu cool la KMT def donc mention spéciale à KMT mon bidef initiative bi vraiment l'époux RAS Les guide gars yi dem vidéo bi nice na trop ça, sound bi neex vroom vroom let's go alors après ces dix ans de carrière dans le milieu du beatmaking Karabalik Beats nous annonce enfin la sortie de son premier projet d'album au nom de Général Kara qui sera disponible ce 10 février Inch'Allah. Karabalik nak bien sûr dafa ñew pour nous confirmer son talent dans l'album génne na la vidéo bi nga xamante ni aussi featuring le ak euh, Bilou Dip Doundou Guiss et Samba Peuzzi intitulé ci lolé nek ñu xooli ko ñëwaat légui légui Karabalik nee na lolé nek nekk si ah ci lolé nek alors gars gis ngeen loolu mën naa ne benn vidéo bu ndaw la rek boo leen xoolee récemment Bilou ci boppam moom moo ko publié et depuis lors dafa def it an gars yaa ngi ciy TikTok ñii di ci Snap et tout di ci def ay challenge en tout cas avec Karabalik Beat on peut s'attendre sound bi nag euh, nice na et euh, ils sont tous assurés en attendant ñuy xaar album bi la 10 février incha allah. alors gars léegi ñu jàll ci ki nga xamante ne ni moo di Omzo Dollar borom BRK. Juste après son sound BRK, dont ce dernier signifie Rap Kassé, Omzo Dal revient avec un nouveau sound au nom de Simple en featuring avec Pab Diouf. ñu xool si un peu ñëwaat léegi léegi. ma ne le def fi lu simple lu simple lu dara simple lu simple la mooy simple lu ñuy simple le def fi lu simple lu simple ma ne yàlla def fi lu simple lu simple simple la vidéo a pour titre simple ñoko gissando à vrai dire Omzo Dollar daa nekk artiste bo xamné il ne cesse de nous surprendre avec son talent bien sûr bon talent am sax mën naa ni que xam nañ ko kenn dootu ko mais ses qualités vidéo avec le featuring avec Pape Diouf non mais benen affaire le gars je vous jure en plus un duo dafa nice dafa kawé en fait bon Mis à part le sound, les paroles et le beau duo, les effets visuels spéciaux et les images m'ont beaucoup impressionné. Bien sûr, c'est très magnifique. Le réalisateur de ce clip tamit non mais qui est-ce que nit qui génie là? vraiment vidéo bi très nice am qualité dama ko yàgg wax Omzo dal mom bu ci côté vidéo rek vidéo yu am qualité lay yu nice sax Motax mané son réalisateur est un génie Néna len du nit il est très doué et espérons qu'il ne sera plus rare moom Omzo Dollar comme comme comme auparavant parce que boo leen xoolee toog nañ benn last time dégguñu ko on avait pas de ces nouvelles au fait ba fan yi passé le def retour donc espérons qu'il ne sera plus rare dans le game donc dem leen ngeen déglu ji sound bi ngeen seetaanaale vidéo bi en même temps featuring ak ki nga xamante ni moo di Pape Diouf

Alors gars, on a vu ensemble la vidéo, elle est intitulée Best Friend. Après leur projet d'album au nom de Lune de Miel, ils sont de plus en plus productifs. Ils bañ ba ñu waxante Il y a même pas 48 heures ils ont fait une vidéo au nom de Best Friend beaucoup ci seen projet d'album « de lune de miel Best Friend c'est en anglais et ce dernier signifie meilleur ami genre ils ont ay meilleur ami kenn ku ci nekk da ngay taxaw sa morom ci lépp nag kenn ku ci nekk da ngay jàppale sa moroom ci lépp en plus seen jiwoo dafa rafet dafa naay trop sax le feeling de Leïna gars yi est-ce que yéen a ngi koy gis mais le flow diplomatique de euh, One Lyrical loolu tamit beneen affaire la foog ñu bàyyi ci xel de plus en plus ñu ngi gën a yéegal level bi ñoo ngi job ñoo ngi def lu naay sax donc mention spéciale à eux One Lyrical et alors gars yi lii laa leen indi loon tey ci seen concept jotaay info boo leen xoolee dañoo dajale quelques actualités yoo xamante ne ni euh, jot na xew ci biir Gambie ñu ñëw partagé ko ak yéen parce que y a certaines yoo xam ne duñu nekk à jour ci biir euh, Gambie ñenn ñi dañuy nekk au boulot ñenn ñi ñenn ñi euh, yitte yi taxawu leen ba duñu am benn temps pour nekk à jour moo tax nag ma def concept bi di jotaay info D'ailleurs, tout ce qui est actualité ñeu diko partager ak yéen donc wax leen sama xalaat ci commentaire yi no leen gisee la vidéo nous leen gisee aussi euh, euh, sujet yi ma leen indil ngeen joxe ci seen xalaat à vos claviers mu alors n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de partager mais aussi de liker Comment sur soxla je suis sur Instagram sous le nom de Kenza l'officiel ma page Facebook bien sûr Kenza 221 sur TikTok Kenza national et sur Snapchat Kenza Diallo pour les di jouer vous ngeen utiliser samay code promo Kenza 221 wala Kenza dina vous permettre de gagner bonus ba 200 mais gars duma ah, regardez-moi ces t-shirts des t-shirts très jolis hip hop 221 xool voilà t-shirt yu nice la te am qualité ku ci bëgg rek mën nga ma def siñ sama numéro mi ngi fofu wala nga woma téléphone inshallah allah jaay la ba paré déplacé wu indil la ko neex donc commandez len dès maintenant numéro baa ngi love you all guys je vous aime à la prochaine et au revoir